bàyyil musique bi te liggéey. man tonton tonton dafa génn instant bi man kese maa nekk si kër bi ak bol bi. lan fu ngeen jëm lan mooy loolu. moom ay émission yi ñuy dox nii. ce qui se passe au poste n'est pas gratuit on cherche à nous mettre sur la touche les gars. booy kaay kaay. Jules. laaj nañ dem booy fii kaay. Jules laisse-moi ici. comment oses-tu te rendre chez un policier un policier. Pape tu parles comme si tu avais le choix. boobu ba léegi maa ngi woo cash mënu ma ko jot xaw ma ci lu mu nekk. parce que gis gi naa dégg ça fait longtemps ça fait longtemps xaw ma sax nekk. ko xaalis eh yow sax waruma la na fay. seen série Impasse saison 2 di ngeen ko am ci sunu Label TV altine ak alxames bu 18h30 jotee ci ngoon contact service commercial 78 296 22 22. série bi ñëpp di wër impasse koj leen ko 18h30 altine ak alxames bu leen ko kenn nettali ci sunu label TV télé bi nekkee ci xolu Sénégal